Malik ne viendra pas. Non, bon. Bon, mesdames, messieurs les journalistes, nous vous remercions. Malgré l'heure tardive, quand tenu à répondre à notre invitation. Euh, Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir d'un seul et unique point. Il s'agit de la situation euh, dramatique, inquiétante, préoccupante du président Ousmane Sonko. alors ci loolu tey ñaari nit rek la ñuy def ñu jël kàddu mooy la présidente Aïda Mbodj su paree ma complété ko ñu yemale ko foofu ndaxte heure bi xaw na tardé donc madame la présidente je vous donne la parole Je vous remercie, le Président, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs les leaders, responsables de PASTEF, responsables des partis, maa ngi leen di nuyu ngeen may ma rekk bala may commencé wax li nga xam ne moom lañ ma sant ma gërëm sunu yaakaar sunu kilifa la xalif général des Mourides Cheikh Mountakha Bachir xalif général des Mourides su ma ko gërëmee nag. mel na ni gërëm naa kilifa diine yëpp te maa ngi leen di nuyu kilifa diine yëpp di leen ziar mën na mën nañu ko tudd tuddaale ñëpp ci taxawaayam mën nañ ko tudd tuddaale ñëpp ci fi mu toll ci kilifteef te ñëpp nangul ko ko yàlla dogal bi nga xamee ni ci mbaaxam dalal nañu keroog talaata muy talaata jii ñu wees ñu dem fa waxtaane ko lii nga xam ne moom lañu bëgg a waxtaane yéen tey mu teeru ñu teral ñu delloo li nga xam ne moom lañu xam ñun ñëpp ci digganteem ak usmaan Sonko muy doomam la taalibeem la mu wax ñu taxawaay bi nga xam ne moom la ci ci taxaw te umpale ko woon ah ba ñu fa jógee jëlee na tàndarma ci biir ndawam indi ko ci suñu toog bi mu ko indee mu jël ko def ci ñaan jox ko taalibeem ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant ndax loolu symbole la message la ba mu ko joxee président Habib daf ko indi ñu fonk ko lool bi yàlla dogalee talaata jooju ñu ñëw guddee nañu waaye bët set di mercredi di àllarba dañoo dem hôpital principal service réanimation bi Ousmane nekk bi ñu demee fekk fa ces médecins traitants ñu xamal ñu ni nekkul en mesure de nous recevoir donc mënuñu koo gis parce que wér-gu-yaramam fi mu tollu mënula jël mënu la gis kenn même am na yenn avocat yu ñëwoon sax waaye mënuñu ko gis ñu daal di dellu ñu ni ñu xëy na bu ñu toogee ba fileeg ñaari fan dinañu ko delloo ci sagoom dina dellu ci sagoom ñu ngeen mën a gisanteek moom tey jii di vendredi cinq août ñu xëy dem service réanimation boobu fekk fa Ousmane Sonko tey nag moom gis nañ ko waaye bu nu sañoon de bu nu xamoon ni noonu lañ koy fekkee ñu def nañ ñu defoon àllarba. ndax usmaan Sonko bee ñu gis usmaan Sonko ñun xàmmewuñ ko waaye moom it xàmmeewuñu Ousmane Sonko bu sonn usmaan Sonko bi nga xam ne waa ju jàmbaare jooju nga xam ne bëggul ku ko ku ko yërëm ñu fekk ko mu nekk ci beneen état boo xam ne xàmmewul dara ba yegg na ci ñun ñii di sunu bopp mënuñu ko woon a jox sax yóbbanteem bi nga xam ne sëriñam bu baax bi moom la ko jox bi ñu ñëwee ñu xamal ñu ni mënul dara mu nga tëdd ñu door a wëlbatiku daldi ñëw bi ñu ñëwee nag suñu xol neexul ga te na ngeen ñu jéggal ci liñ leen guddee woo waaye loolu ñu gis tey ci suba mënuñu ko woon a tëddaale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 mooy environnement euh, carcéral mënatu cee nekk te loolu na ku nekk jël ay responsabilité mais Ousmane Sonko miim ñu gis tey ci suba ca service de réanimation mënatu la nekk ci environnement carcéral loolu nag kenn mënu ko tëddaale loolu kenn mënu ko toogaale bëggatuñu dara ci àddina ndax tey jii ku jur doom rek xam nga ne lee metti na kuy bàyyi doom rek xam nga ne loolu metti na xol bu metti nag la ñu ñibbi si moom la ñu bëgg a bokk ak opinion bi nationale et international pour interpeller ñëpp interpeller les consciences mais interpeller tam kenn ku nekk ci sa responsabilité pour wax ni loo xam ne bakkan daf ci nekk en jeu loolu dafa jar a reconsidérer lii dara jaru ko defuñu dara nag pour yombalal ko ndax ci biir li mu nekk ci lañu ñu dissoudre parti mu nekk lu diis ci biir li mu nekk ci lañ koy menacer loolu yegg guñ ci ndax xëy na partie civile procès dina am pour que kenn di constitué wu te bu boobaa ci la ñuy xam kanay kan ci la responsabilité yi di situé wu ñu ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois may gërëm doyen Habib boobu ba léegi toogul na kan wi kenn ku ci nekk leader yëpp ñi toog fii ak ñi fi toogul kenn ku nekk loo xam yaa ngi ciy dugg loo mën yaa ngi koy def ñun dañu nekk di wax ci seen tur rek waaye ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp yéen itam ñu ngi leen di gërëm waa presse bi yëpp ñu ngi leen di sant jërëjëf